plateforme yi xam ne ñoo fi nekk waaye balaa boobu di leen nuyu ñi nga xamante ni ñoo nekk fi nga xam mooy si gox bi di leen baalu àq bu baax a baax a baax a baax waaye di nuyu kilifa diine kilifa aada yëpp di ñaanal way dawlu yi yàlla yërëm leen te xaarale ajana ñaañu tëdd si loolu hôpital yëpp yàlla fëgg seen bopp waaye dañ fàtte ma ku ñu caabi féete ginnaaw ñu leen di ñoon suñu borom dimbali ma dellu saa suñu biir bu baax a baax ndax njumte du wees te dessin suñu borom a koy sàkkul boppam nuyu nañ tamit diaspora bi fépp foo xam ne doomu réew maa ngi fa ñu ngi lay nuyu di la di la wax tukki neex na waaye ñibbisi moo ko daax ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax a baax tey ñu ngi fi nga xamante ni mooy jàmm gan si ka mbaaw tali maam jaar ku ñu fi woo tey mii muy Modou Feugeula bu nee Modou Feugeula nag yaakaar naa ne xel dina dem si ki nga xamante ni nii mooy Feugeula ñu koy nuyu au passage bu baax a baax a baax di ko jaajëfal bu baax a baax di ko wax sunu xel a ci moom du te sunu xel lu jug ci moom tey bu ñu toogee ak Modou Feugeula fii dina nuyu tamit ki nga xamante ni mooy Daouda Sandwich di champion bu mag nekk si gox bi ñu koy nuyu di ko jox wàccuwaay bu baax Modou Feugeula nag daa jëm bis bu am solo muy samdi le 7 décembre 2024 fee ca arène nationale digganteem ak ki nga xamante mooy Siteu 205 ñu ko ñu fa woo di Bamba Milano di Milano production moo Modou Feugeula ngi nii na jàkkaaroog askanu Sénégal jàkkaaroog Siteu 205 Modou Feugeula maa ngi lay nuyu. onze mille bisimilah bi ne wala yàlla di nuyu ñu fi toog ñëpp. di jégalu bu baax a baax a baax dëkkandoo yi di sant bu baax a baax a baax waa koñ bi di nuyu sama booy yëpp waaw di nuyu booy yëpp di sant booy yëpp waaw di leen nuyu bu baax a baax a baax leen gis nañ taxawaay yi gis nañ ñu ngeen si jàppee parce que booy essange tol ni nelawatuñu fanaanatuñu wax dëgg yàlla sama kër la ñuy toog ba 4 heures du matin ñoom ñëpp di leen sant bu baax a baax di leen gërëm naa leen ànd lii lay jariñ quoi di baalu àq dëkkandoo yi yëpp koñ bi yëpp di baalu ñëpp àq waaw di baalu ñëpp àq di sant ñëpp di gërëm ñëpp daal wasalaam. ngay jëm bis bu am solo mi samedi nga jël ki nga xam ne mooy cité 205 coow li bari noonu nag seen face à face sa arène nationale gis meloon ñu naan combat bi combat bi nar a métti la ci àdduna adversaire bi soo bi ko baral waaw adversaire bi maa moom laa mu boolewuñ sax xëy na situation oblige quoi moo tax ñu jël ko pour am benn faar bu ñu bëgg a régler suñu yoon rek moo tax ñu jël ko mais samedi incha allah dañ ko wan duñu moroomam ci dara. yeah est-ce moom si moom nga koy réglé. non moom si moom laa koy réglé. yeah moom tàngul yàlla baax na daal la seet yàggul incha allah rabi. waaw dañoo gis ne ñu ko mu moom du kenn si kenn koo xamante ni si moom la ñuy ratifié woo dafa am foo nekkoon jugee fa moom am lu mu prouvé indi fa te nekkul yow yaa koy teel nga àgg fi mu jëm te nekkul si moom ngay suqaliku waate waa. waaw loolu yàggatul. waaw loolu yàggatul. yaakaar naa ne actuellement nii nii wax ji moom jarul muy bëri parce que samedi ñëw na ba pare. essentiel daal lu waay liggéey samedi naka wane si kàttanu yàlla man li ma liggéey laa gëm ma ànd ak samay kër si liggéey liggéey ñu liggéey loom lu metti di ci sant kër su Jules kër su Raymond Mballo ak kër su Cher kër su Paate kër su Biram waaw di leen sant bu baax a baax baax ci liggéey bi ko kontaan naa si bu baax a baax a baax bu samedi incha allah dinaa ko tari si adversaire bi préparation bi ak adversaire am na différence non wax dëgg yàlla préparation bi man pare ma ko pour moom pare woo ko pour moom non non non non pare ma pour moom. Hmm. parce que boo yi dafa am lu ma leen ameel te incha allah du benn combat moo leen koy fay. du benn combat moo leen koy fay pareewu sax pour moom te bu ñu bëree ma pare incha allah le huit dina xam ne man pareewu ma sax pour moom si kàttanu yàlla. Hmm. mais arbitre ci fële génn seen diggante yéen ñaar. Oh, noonu la ma liggéey mooy parce que Siteu 205 moom kenn du ko wax ne ko kaay taxaw samp jaaga parce que moom loolu lañ ko ma tànki ginnaaw Modou beneen Modou Feugue la war a ñëwaat ci arène bi war a ñëw nan nga war a ñëwee. waaw incha allah xanaa ñëwee nag ni ma sama gars yi yabee rek ku ci mel ni sama copain Daouda Adja Ba jaañ Ibrahima gars yi ñoom Aliou Sarr Pape Thierno bàyyiwuma kenn Moussa Ndana ah, Papa Ara Fass 2 bàyyiwuma kenn. ñëwal ñëwal ci combat bi ñëwal. bàyyiwuma kenn dafa am nu ñu ma yabee dafa am nu ñu ma yabee te yaakaar naa ne lamb ji yàggatul waaw na dëggal boppam rek taxaw li waay doon jaay samedi incha allah rabi dina lamb waa parce que làmb foofu góor la làmb foofu góor la ca waar ba ñun bu ñu demee làmb di xof baa ñuy tiit bu ñu teg si ngeen ma xool leneen barke Serigne Touba làmb foofu góor la jàmbaar ca waar ba amul leneen lu ñuy xaar. no déggoo li ma la wax man ak waa yëmbal geer la ñuy woote ñoom ñoo ko woote mais denc dawal. geer la ñu woote mais dañ ci doyal parce que xam naa dina xa daan ci kàttanu yàlla bu dee li muy wax dëgg la daa bëgg guerre bi continuer na jël booy Moussa Ndaal dinaa xa daan bu pare na am ngoru jël booy ñu continuer geer bi mais day daanu di teg ay wiiri wiiri yooyu amul sens si kàttanu yàlla day jaaxaan mhm. non Siteu 205 mënut a dis sama kanam mënut a dis sama kanam parce que Ama Malika lu mel noonu moo mu am ndam sama kaw waaw parce que man lu mel nan lu mel ni jàmbaar quoi jambar la doon woote te du dëgg ci mom mais ci gàttanu yàlla ñoom ñëpp am kuy woote jàmbaar jàkkaarloog man boo xàddewul da ngay jaaxaan lu leer laa la wax waaye lu raw fay nga naan ma nii pour laamu ji nii ndégoo la wax sax mi ci ginnaawam laa soxla billaay wallaay. njool man. njool mi ci ginnaaw laa soxla. te suñ bëree pare moom dina xam ni moom laa soxla. di ñaanal Mor Kang ndam bu baax a baax a baax. li ma jaaxal mooy diggante yëmbal ak fii sorewul mais dañoo gis ni léegi dafa yaakaar naa mel ni bu njëkk sax dañu naan duñ bëree mais léegi dafa mel ni dafa am lu nekk si diggante bi parce que yaa ngi naan dafa am njool moom laa soxla lan la. waaw ñoom ñooy ñoddi loo xam ne ñu ko barke Serigne Touba li ñuy xeeñ diwoowuñu ko maanaam mënuñu di roy ci jàmm gën ba pare Fass Mbao di roy fii ba pare bëgg maanaam di di ñoddi bandi suñu kanam war na Serigne Touba Fass Mbao ba jàmm a gën jàpp Lamsaar bandi mënul ñodde suñ kaw lu ñu saf wallaahi azim ñun fi lañ juddoo fi lañ màggee fi lañ yaroo ba may mbapat foofu ñoom jóguñ sax mais est-ce que arbitre nga dagg jéngi fekk ki nga xam ne mooy 17205 non man awma tànk ma awma tànk ginnaaw non déggoo li ma la wax dina xeex dina bëree barki Serigne Bamba. dina xeex ñeme nga xeex si 205. non déggoo li ma la wax ñu ko gën a ës laa fi ko deful ma ray ko. boo ko doon jàpp rek daan ko day yomb doo ko jàpp rek daan ko ah. déedéet waaw da nga koy duma dama koy duma soo ko daan dafa impoli quoi il xaw ko corriger tuuti ah. il faut ñu corriger ko tuuti soo ko daan si kattanu ah. yàlla waaw si li ma lay xamal bariwul de bu ma ñëwee rek jàpp la day yomb il ma corriger la tuuti say kàddu yooyu noonu il faut ma defaraat ko mais moo dafa dañoo gis ni dafa am excès de confiance booy dégager te sa combat yu bëri lu koy bokk nga ñàkk ko sax loolu ci la bokk da ngay dégager benn excès de confiance ñëwee ko ci bis ba. Mhm. ba doo bi nga xam ne mooy cër a ñàkk. waaw mais sant yàlla bu baax a baax quoi. sant yàlla bu baax a baax. actuellement nii may waxee nii la woon woon na quoi la woon woon na actuellement nii mbër bee ñëw mbapat laa indi ci làmb mbapat laay indi la set incha allah rabi. jaayatuma jàmbaar xeexatuma damay ñëw bëree daan ñibi yàlla dimbali nañu mën nañ ko te jàng nañ ko. incha allah li ñuy jàngal bu ñëwee tare ko samedi incha allah rabi. waaw parce que danay moo ëpp doole fuuf danay moom ëpp doole moo tax ma ne danaa ko wane dinaa ko danaa ko jàpp dinaa ko daan ci kàttanu yàlla. est day daw xeex waaw na xeex. yaakaar naa ne booy xeex ak Modou Feugeule moom loolu rep la quoi mais man damay bëri seeg moom si kàttanu yàlla. naar woo si waaw di di woo waa Fass Mbao di woo waa Fass Mbao yëpp jàmm a gën Sika Mbao Fora Sam-Sam bàyyiwuma kenn moo fëgg la mhm. bis bi ngay bëree bis bu espoir euh, exemple la si làmb mhm. histoire du koy bind comme ni ñu koy waxee euh, ki nga xamante ni mooy Bamba Milano du seen morom di seen nawle tëgg bis bi di jeune mhm. Cité 205 ku ko xam-xam kenn du ko wax si mobilisation

tem ma jàpp gan gi defaral ko ñu ñibbi si kàttanu yàlla waaw. sow yëpp yëpp bàyyiwuma kenn sant naa ñëpp gërëm ñaa ñëpp parce que gis naa lu ñu ma jàppalee bu baax a baax si contact yeeg ñi may woo téléphone ñuy àndam dini yeeg sant naa ñëpp gërëm naa ñëpp. waaw di sant alaaji états bu baax a baax doomu ndeyu fëgg di sant suma papa fëgg bu baax a baax a baax di sant euh, madame Morgo di sant Baye Doudou jëkkëram ak grand Zal Ndir Paka ñu ngi sant bu baax a baax a di leen gërëm ak monsieur le maire Papa di ko ñaanal yàlla jàmm monsieur le maire Papa Gueye maa ngi koy ñaanal jàmm bu baax a baax a baax fa mu nekk di sant Serigne Fallou Gassama di sant Serigne Fallou Gassama ak jabaram Nogay di sant waa koñ bi yëpp di baalu ñëpp àq di sant Omar Bass bu Serigne Saliou bu baax a baax a baax a baax combat bi sa combat di sant Samba Ndour ah Samba ñu ngi sant bu baax a baax a baax di sant Daouda Saldigue ñu ngoy koy sant bu baax di ko woo ci combat bi mu gën ci japp mu ci japp di wo sam papa ñang ñang balo di rendre hommage landing Jeme ah. landing da ka masawu wa Fass Mbao yëpp ak kulu jola di nan suñu xel du denc mom landing yalla na ko yàlla yërëm di ko xaare ajana yi gëna kawé ci aljana yi di wo wa caw sa xir wa ciow sa xir yëpp ñu nak ñom ben lañ borom wa massa dar kessé wa massa dar kessé ñu ngi leen di bu baaxa a ci combat bi wa boom ñom sang ah, ak ñom Modou Mbaye ñoom Abdou Salaam ñoom Abou ah fee Ndiol bàyyiwuñ kenn grand Edmo ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax grand Ndiaga Thiaw ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax baax di woo ñëpp ñu ñëw jàpp si di sant Baye Amdi Kayre maaso spécial may am Baye Amdi Kerme Baye Amdi Kayre maaso spécial ah man Modou Feugeula maa lay jox sa waaj waay naan la gis naa ni nga ma taxaw ci combat bi yàlla la yàlla fay sa xol waaw ku bëgg yoon bu baax nag jaaral ci am Amdi incha allah dina teg ci yoon bu baax di sant waa Fass Mbao gi yëpp waaw di sant grand Mour Sall grand Mor Sall ñu ngi sante bu baax baax wañ Espagne ak jabaram Tanday di sante Abi Meng di sante fatsar di sante pap Mbour ah Mbour regroupement bu bari leen sama galé ciép diwlin lepp leen sama galé pap Mbour ak jabaram Kodo di ko sante bu baax a baax baax baax di sante wa pikin wa pikin ñu ngi leen bu baax baax sama dom Maru ñom Maru ñom ñepp ñu ngi leen sante bu baax baax ak Mala di sante Jakarta mani, ñooñu awma sen fay Jakarta mani ñom yeya yëpp ñu ngi leen di sant Laasana ada gars yëpp ma kenn ku lim day juum sant naa leen baax a baax a baax di leen gërëm di sant sama géwal Malick Seck mention spéciale moom aw ma fayam wallahi lépp lu muy def si làmb ji fayu ma dërëm moo jël décision boppam daf ko ci ak patron am El Hadj di ko sant bu baax a baax di ka gërëm di gërëm Tégga Mbaye ah ñu ngi koy sant bu baax baax di ko gërëm di gërëm grand Abdou Babou ci café bi ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax di ko gërëm di gërëm waa Fass Ba yëpp ak suñu mafia xaal bi ah di bërëm point final ah. ñu ngi koy sant bu baax baax di ko gërëm naan ko na góorgóorlu yàllaay fépp mafia dóoru yi Cheikh Omar ñu ngi koy sant bu baax Cheikh Omar Diémé Cheikh Omar ñu ngi koy sant baax a baax di gërëm di gërëm Baye Jall Alex gars yëpp daal bàyyiwuñu leen képp kuy dawal mbooloo ci Fass Mbao rek ñu ngi lay sant di woo di woo Woz Woz ak lay si Pape Carinas bàyyiwuñu kenn Ahmed Ambu Ndaw Ambu Ndaw ñu ngi lay woo nga ñëw ci combat bi sa combat di woo Zo Zal Sidi Lamine Yacine ñu kenn daal waa Fass Mbao gi yëpp kontaan naa sant naa leen di nuyu jigéen ñi bale ci koñ bi ah. jigéen yi maire ñoom Binta Ngaay classe googu noonu ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax di leen gërëm. rendez la rendez-vous le 7 décembre allah rabi. Ah. ngeen ñëw Kër Modou Feugeula. añ ba suur naan ba mandi dugg ci kaari dem ma jëli ndam li si kàttanu yàlla nogay jawaru sëñ Fallou Gassama maaso spécial nogay ah ñu lay sant bu baax a baax a di la gërëm waaw di gërëm ñes kum Abdallah ñes ñu ngi lay gërëm bu baax a a baax a baax jërëjëf rendez le 7 décembre fee ca Arène